dàq bi nga xam ne kon dàq nañ ko doona di ba pare ñaari dëkk na waaye bu ñu sukkandikoo ci na waaw nee xanaa xamoo ne Ousmane Sonko bi lé dañ caa waaw parce que nag daf cee am biir PV bu garaaw a garaaw ah. waaye li jaaxal nit ñi day Sër Malick waaw mais ñooñu ko ba pare looloo tax nag ba njiitoo xam le ne gendarmerie ak pul waaw manifestation manifestation ndigal daal di diine gendarmerie ak policier dañoo bañ yéenekaay yu Macky Sall day mooy ne fi mu daal di fay teg ay nit yoo xam ne di ko nekk ci colonel Abdourahima Gëm parce que gis nga général mu am ni kon ay mbolde ay ku ak ay aka waaw mais ñi jàkkaarloo gis nga président Macky Sall day bi mais da doon naqarlu nervi ci jëkkaane ndax bi nga commandant de la gendarmerie waaw ci Omar Touré bee ko la ko wax boobu li ne xam gi lé alune ay almeti réew moo xam gi la de yo ndax boo xam ne day dañoo gaaw a fàttali benn leçon ci assise de 2011 ba waaw waaye mars bi ñu génn ni le rek àllundi troisième mandat mën a déere kaane moo dox waaw bëgg nañoo dekkalaat nag ne ko yow may ma ma yeggali may ma ma économie président am na sañ-sañam am koy defee conflit d'intérêt dim jaañ day économie ci les foñ bu mbaay lii folklore wax nañ ko tax Seydou Gueye AP xam nga tournée président bi lé nga wane nga ne xamoo dara amal d'emploi ci risque eh. am na beneen waa abto la jógee daanu réew mi ne ko koy ñuy yuuxoo ca kër Ndiaye Lo tey ay xeer lañ ko doon jox Ndiaye Lo sur ko diñee ne ci nerf bi day opposition teggi tuuma Sador Mbaye ci àllay gis sama nerf bi aha laata gëlee Macky Sall day bopp gëlee ëpp na direct ñu ne waaw wane na boppam de waa ji ko wax ci betti nit ñi kay bopp gëlee moom lañ jàppee aw taw day la mobiliser borom Jolof sur sa année wal waa daara Jolof ba maana déta dalee na la ay doomu aadama ñëw rek rox waa daara jolof ne jàpp leen évidence tey kaay ne waaw xamal na sàmm daara jolof googe tribune yee rek ah gis nga te fuuta bu dee ab yàlla ju ndaw ar di tali waa le maki dans le fuuta bugaan ngay dani kay te maatam gale ata urosol opération ti bu tànk def na ko waaw ne diggante Ousmane Sonko kuñ gën a jox kër